Pierre yi dégg sa daal bi mu nuyoo foofu lu yéeme daal di fay xew bi kii nga xam ne moo di Ismaïla dafa tiit bu wàcc kaas ba mu yoroon Ismaïla lu xew yaa ngi amatul jàmm rido bi mu wéeru woon daf koo xëcc ba rido ba dagg ca noonee rek nday am jëkk saay rek jàpp bopp bi daal di yuuxu daal di génn saal bi Ismaïla tamit jaaxle jug daw topp ca am yi taxawal taxawal lu xew nday ami nangu ko expliquer benn yoon nanu ko bàyyi ma yow man ak yow suñu diggante jeex na ba tey Ismaïla comprendre lan moo xew mu ñëw ci nijaayam daan ne ko ndijaay tey nag bëggoon naa nga leeral ma lan moo xew lan moo tax nday ami gis la rek daal di daw nijaay wax ma gaaw jamono jooju nag Ismaïla bi ngi jooy nijaayam daan ne ko Ismaïla lii xew dafa jiitu sa juddu mu ne ko waa nijaay man léegi magum jëmm la boo mu waxul nan laay comprendre li xew mu ne ko nday ami mii nga gis yaayam man ak moom ñoo nekkoon bu may ñëw seen kër nag lu ndaw la woon mais amoon ñetti at jàpp juróom benn at dana ma fa gis lu bëree bari benn bés dama doon sàkku yaayam bi waxee lool rek Ismaïla dafa taf loxoom ci gémmiñam ni sàkku yaayu ndey ami mu ko dalal rek ma la dama doon sàkku yaayam bi ma koy sàkku mu daal di bañ ma forcé ko ba àgg ca kawam ca noonee la yaayam jël benn xottu biteel mooy butéelu boisson yooyu bëggun ma koo dóor ci bopp ca noonee laa ko nangoo daldi ko koy jam ci baat bi ma gersoo ci laa gis ndey ami toog ci wet gi daldi yuuxu jàpp bopp bi di ma xool bët bëti jéppi man nag ma jàpp ne kii gone la xamul dara waaye Ismaïla bàkkaar bi ma def nan laa def ba yàlla jéggal ma ko bi ñu nettali histoire ba àgg foofu rek njëkk saa dégg coow lu bari ñu commencé fëgg li nga xam ne moo di bund kër gi mu daane Ismaïla jógal xool loolu mu ko ni jaay ma de sama yoon nekku ci mu ne ko dimbali ma nga dem xool ma bund kër gi ña fay fëgg ñan la bi mu waxee loolu rek Ismaïla am daal di daw mu daal jóg ci na mu gën a gaawee dem ca buntu kër ga waaye bi mu eggee mu fekk fa mbetteel mbetteel la fa fekk moom Ismaïla la daal di yuuxu jàpp bopp bi moom la ngi jaay daal di tiit jàpp bopp bi moom tamit bu mu ñëwee ba egsi daal di xool buntu kër gi gis la Ismaïla gis daal tiit moom tamit.